asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 11 avril 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi sunu làmb nag tey fa la nuy xëy commencé ko yëglekaay bi nag tey ama seen la xëy wan ñu ko Eumeu seen nag la mu àndal raglu na ba yegg ci lool lool lool ndax nag ab dawkat la te dawkat ba foo ko takk ci ñuulaay weesu na ko làmmeñ wa it xongu na ba yegg ci cur yëglekaay bi nag nee na Eumeu Sène fi mu nekk nii daal këram gee ca mbaaw moom li mu ca def mooy tëj ko ràpp fermer ko ba nga xam ne daal mu ngay filtrer ña fay dugg ak ña génn li ko ko yóbbee nag wala ko waral lenn la digganteem ak Modou Lo bi nga xam ne fii ak ñetti weer war nañoo bëre maanaam ëmma daal yëglikaay bi nee na ah li ñuy wax wàllum surveillance daal maanaam ak bàyyi xel wattu sa bopp ëmma loolu la def li olof naan fagaru moo gën faju daa mel ama moom la xam ba tax na jël na lépp loo xam ne nii daal mooy loo xam ne bu ko defee këram dina am sécurité wala kenn du fa dugg wala kuy dugg dinañ xam yow la kan ak loo fay wut mu mel ni kii daal fi mu nekk nii ëmma fawul kaful reewul mu nga taxaw temm jatu ni ab soccet diggante ma kii moo tax Eumeu seen daal ah fi mu nekk nii day daa mel ni ki daal li mu bëgg mooy daal bés ba mu jëm kenn bañ ko koo yàqal sunu làmb moo xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne ni gis nañ ko muy coow li fi xew taay yi diggante Pape Thialis Faye Gris Bordeaux Bombardier Ama Baldé Tapha Tine ak Siteu ak Papa Sow Pape Thialis nag yëglikaay bi di sunu làmb nee na li leer ba leer Pape Thialis nag la mu wax maanaam tëj na débat ba nee na ko kàpp la mu wax gaa yi daal nee na max dong lay déglu bu ko joxee daal fa weer li mu bëgg a def mu def ko waaye sunu làmb moom mu ngay gëstu nee na mbir mi ndax ab ñàkkum sponsor la wala lan wala problème da liquidité dafa am wala lu xew sunu làmb daal mooy def ay gëstu jëmale ko ci kii nga xam ne mooy Pape Thialis Faye moomu waaye dañ fay jóge ñun dem ci leneen loo xam ne yëglikaay biir sunu làmb da caa ñëw muy loo xam ne mu ngay xeeñ damay xeeñ neexul muy école de lutte Falaye Balde sunu ñoom bu continuer du baax si ñoom année balance mu nga yot Ama Balde kii di Fallaye Balde wala boog ki nga xam ne mooy Malaw Seras amul combat Fallaye Balde numéro 2 moom exilé na maanaam gisatee su kook ay bët ndax voyagé wul sunu lam ne loolu day mooy xeeñ ñi nga xam ne ñooy waa kër Fallaye te du neex bu ñu ca yeggee keneen koo xam ne ni moom la koy xeeñ bu fekkente ne xeeñtu na ko mu xeeñ neex bu ca jógee mën na bëri jëkk roi des arènes muy Lac de Guiers numéro 2 ko xëy di wax mooy Mor Fadam nee na leer ba leer day nga xam ne nii moo di booy Niang ah dina nekk candidat bu sérieux ngir nekk ngir nekk li nga xam ne mooy roi des arènes moo fa dama xëy tey di wax loolu ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu lamb leneen loo xam ne nii gis nañ ko ci yëglikaay bii di sunu lamb mooy diggante Laay Pythagore ak ñaqi jariñu yëglikaay bi ñëw na ci ñoom am na koo xam ne nag mu nga xëy di ca wax xalaatam muy Paala Jóob leneen loo xam ne démb la amoon sunu lamb ñëw ci mooy jàkkaarloo bu taroon tar diggante Ndandi Fall ak kii nga xam ne nii moom moo di soq yëglikaay bi daal nee ñoom ñaar day démb mayante wuñu dara ndandi nag mu ngay attaqué waaye soq moom relax la def daal bàyyeeku moom daal non stress la ñëwee démb fa nga xam ne fa lañ doon sam mbay moo jaar foofa leneen loo xam ne nii moom gis nañ ko ci yëglikaay bii nga xam ne nii moom moo di sunu làmb mooy mbirum fara ak neekuréel daa mel ni faraa daal mbirum kii nga xam ne ni mooy neekuréel moom ñoru ko mook waa këram wala kii nga xam ne mooy Cobra 2 keneen koo xam ne moom jàmm la doon woote fële ca Gàmbi mooy guy gi ci diggante Pape Mbaye ak Double Tyson ba làmb ja jeexee nag xeex ba dafa metti woon lool waaye guy gi daal taxaw na fa taxawaay boo xam ne yëglikaay bi nee na taxawaay ba foo ko takk ci ak rafet yegg na fa koo xam ne moom star la woon ca Gàmbi moo di yaawu jàll nit ñaa nga doon ànd ak moom di ay photo la ca des mooy féeri ba yaaw da koo yëngal ba mu yëngatu lool loolooy wane ne nit ku nekk rek Taala Njaay li am solo te des la olof waxoon rek ku lamb yaa tey jaayul fañ la nobe mu mel ni yaawu jàll li muy doon doon doon mbër wala boog li muy ndaw ndaw ndaw ci doole am na ñoo xam ne yaawu rekk a leen saf waaye loo ci mën a dégg daal jàpp leen ëmma seen mii day daa mel ni kaful fowul reewul xaw ma nag Modou Lo moom ci lu mu ne maaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV yëpp ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ñëw ak yéen seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee ak yéen chaque fois ci biir semaine bi may nuyu Babacar sama mag sama xarit ak moom ci jàngat bi Babacar nuyu naa la. Aïssatou Faye ah sama rak sama jigéen sama xarit Serigne Moussa Niang maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di rek ñëpp ci Leewtoo fu ñu mën a ne si àddina bi rek ngi leen di nuyu di leen ziar di wax nag tey macha allah quoi càq bi Aïssa cosaane na quoi ak létt yi waaw sénégalais pire daal voilà waaw ah, waaw kon noonu la léeg-léeg foofu ñu sàcc tuuti dellu cosaan tuuti waaw ñu daal di jublu si li nga xam ne ni mooy jàngat bi ñëw ak ki nga Eumeu Sène Eumeu Sène di waajal combat bu mag digganteem mag Modou mel ni dafa xam sob bi ñuy wax ci Modou ba tax na nee na Eumeu Sène këram fële ca mbaaw dafa daal di bloqué lépp supervisé lépp dugg beeg génn bi dañ koy xoolaat amul amul dem ak dikk daa amul jaabante lépp a ci sous surveillance. waaw maanaam daal pas jaabante. nii jàllantu amu fa. wala boog kuy jàllante wala ngay jaabante dañuy xam foo jógee foo bokk olof nag nee na fagaru moo gën faju te daw ca ba ngay ami tànk xëy na am na lu muy bañ parce que dafa jëm si combat bu nga xam ne ni combat capital la pour moom. te am na lu ko daloon. la ko daloon xam naa moom lay bañ mu dalaat parce que dañ ne boo fotee ci ndab fotaat ci ndab ah. dañ day daal di jàppee ku fuqale nag dootul nekk njuumte xëy na kon day bañ a fataat nag li ko waral mooy ki muy bëreel adversaire bi toll na noonu muy Modou Lo ndax ah, mu def moo xam da lay déstabiliser moo xam lu mu mën a doon loolu nag mooy sarmu lamb et puis mooy lamb ëma itam loolu mu def c'est le maanaam lu normal la parce que c'est le roi des arènes te nag su ko bëggee am na lu muy laaj li muy laaj mooy maanaam liggéey bu wóor liggéey bi Sénégal entraînement dina ko maye dem ci ñi nga war a dem dina ko maye mais tamit xool sa ay entourage ñi ñëw ci yow ak ñiy dem ak yooyu dina ko maye waaye li gën am importance daal pour man mooy entraînement bi ak psychologiquement bésu combat bi sa bopp nekk pour nga mën a aborder adversaire bi loolu dafay am solo. waaw combat moom euh, du doole rek psychologie ci la bokk mental bu dëgër mooy dem euh, ci làmb ñu dem si ki nga xam ne nii mooy Pape Thialis fan yëpp nit ñaa ngi laaj coow lu bëri laaj ndey mili bi ne fu bési tool moom nag nee na leen lu mag Max Mbergane wax loolu laa wax bu ne nañ tëgg ñu tëgg lu wax daal maa waaw waaw day wax ju leer la bu dee comme max rek la ne lu wax wax na ko moom kon yaakaar naa ne kon na ñi dunde yaakaar te xalaat na kay dina tëgg ndax max moom bu sañun combat yëpp day taxaw laa yaakaar kon daal li am solo mooy ñu ngi ñaan Pape Thialis Faye combat yi nga xam ne wax nañ ko muy Bombardier Gris Bordeaux Ama Baldé Papa Sow Siteu yàlla na ko yàlla def mu mën ko réussir parce tamit la rek avantage su mbëri ndax comme li muy wax année balance pratiquer sport am parce que loolu mooy tax muy nekk tout le temps ci sport bi di waaw ku boo bëree daal dama naan mbër nga mais soo bëreewul ay sa euh, waaw waa dañ koy xoolaat waaw loolu moo am quoi waaw keneen nag yoo xam ne mi ngi jëm ci bés di waajal combat tamit bu capital ci moom muy euh, booy Niang mi euh, war a dajeek euh, Lac de Guiers fa dem ñëw it daal di wax ci li nga xam ne ni mooy xaar Lac de Guiers parce que nee na combat bi mu jëm opportunité la tey jii pour mu mën a dajeek roi des arènes su fekkee gañe ki nga xam ne mooy doomu dëgal ba. waaw bu fekkee gañe na ko mais ay sa balaa muy ñëw si naam lu ma yokkaat tuuti ci le cas de Pape Thialis Faye boobu xam nga ci làmb lañ nekk làmb saison la saison bi am na nu muy doxe saison bi am na lu ci dugg. amuñu lu nga xam ne nag dañ koy joxe ñun comme conseil mais am nañ droit wax suñu xalaat xalaat bi mooy lan lamb dafa am ay réalité yaa ngi dégg mbër yi ngay tëgg yan mbër la ñuy doon ban temps la ñu war a def seen publicité seen ay promotion combat loolu lépp dafa jara xoolaat te xaalis nag du fa surtout ay million foo koy dugal rek war naa am lu nga xam ne ni boo ca euh, boo ca gañuwul dara tamit mais bu ci perte rentabilité ku ne soxla na ko ci li ngay liggéey boo mënta am rentabilité la nga dugaloon nga tiyaat ko yaa ngi dégg mais kenn xalaatul même boo doon multimilliardaire di dugal sa xaalis di perte loolu amul benn njariñ kon ñun li koy wax en tant que nit ku yor suñu xalaat di wax mooy li ñuy wax promoteur yëpp ku ci nekk rek lépp looy dugg na ko jàngat ba nga xam ne boo ci duggee di nga ci mën a génn ak ndam waaw loolu daal mooy suñu ay wax ci côté boobu Mor Fadam tamit suñu papa la encore une a ñu koy nuyu loolu mu wax noonu si Lac de waa xel mën na koo nangu parce que Lac de Guiers li tax tey bu daanoon Boy Niang mën a ah, ñu xalaat ko ci roi des arènes parce que benn defet lam ci lamb te Eumeu Sène moo ko ko teg Eumeu Sène actuellement c'est le roi des arènes yaa ngi dégg euh, kon Lac de Guiers bokk na ci mbër yi nga xam ne mbër yi gën a sérieux ci Sénégal ci côté entraînement boo koy xool da ngay Lac de Guiers da ciy bokk waaw parce que mësul ñëw ci làmb nga ne entraîné wul wala indiwul doole à ah, tout le temps bu ñëwee macha allah forme physique bu normal lay indi te itam du foye bëri kon mbër bi nga xam ne daal euh, champion la mais nag nag sóoraal ne am na adversaire bu tax ne Boy Niang nag mën na nekk roi des arènes wala mu nekk prétendant pour roi des arènes loolu ndax dana daan Boy Niang wala du daan Boy Niang question bi foofu la ne ñu xaar juillet incha allahu rabbi waaw ñu ciy nuyuwaale suñu frère Baye moom moo tëgg làmb Babacar euh, ñu jublu dem ci li nga xam ne ni mooy euh, face to face bi amoon euh, démb fële ca plage Diamalaye bi ko Sam organisé diggante Sokh ak Nandi Fall muy combat boo xam ne nag ñu ngi koy xaar fee nga xam ne mooy mois de mois d' avril bi la affiche boobu daal démb ñaari mbëri jàkkaarloo nañ Babacar. Ah, ah, waaw la Sam Mbaye def Sam nag ñu koy nuyu di ko ziar moom suñu la boo xam ne nii mu ngi ci làmb vraiment di di ni ko promoteur bi dafa allah la mujjee tëgg bu la tey bu avril moo lay lay wan ne nekk nii moom làmb xam naa balaa ñoo dem ci koor gi moom gars yi seen yaram yi daa tàng quoi waaw la Youssou Ndour lu guddi gi di gën a dem yaram yi di gën tàng mais actuellement promoteurs yi foofu lañ toll quoi waaw weekend bi gis nga ni mu chargé te weekend bële ñu jëmit noonu lay chargé bu soobee yàlla mais yàlla nañ ko fekkee te tal rek que le meilleur parce que loolu lañ soxla làmb na dox rek daal am na solo. waaw journée le euh, 13 diggante ki nga xam ne ni mooy Wouly 2 ak euh, ambulance ñoom ñaar tamit euh, def nañ seen open press barki démb ak démb la woon démb la woon Thiès fële ambulance mu nekkoon tamit ay open press yoo xam ne dalal na xel ci journée bi ñu jëm. waaw waaw loolu Assane Ndiaye fa jaar muy samedi le 13 loolu nag li si am solo mooy ñaari mbër yi ko seq parce que Wouly 2 ku ko xam-xam ne bër bu am fit la ku ñemee xeex la ku mën a bëri la itam fonk na li muy def ambulance que zalika naka noonu ndax Thiès la nekk. am fa écrit muy bëgg sa waajur te tey gis nga bokk na ci mbër yi ci làmb loolu déjà mérite la kon moo lay wan ne que Assane moom journée boobu samedi man kay dama naan ban combat ngay tànn laa xam ndax général Diouf boo ko jëlee moo ko explosé loof loo lan ngay tànn Aïssa boo jëlee euh, ama bu Malika ak ki nga xam ne mooy koña numéro 2 loolu lu doy waar la sans compter Boy Balde ak Yeksil mu nekk làmb joo xam ne daal samedi yàlla nañ ko fekk tal ko mais dina neex lool te dimanche ba itam jamaïcain day ñëw laay Pythagore ñaq jariñu zal bawol brise de mer wulli big pato décoration Babacar mii toog nag ak Lamine ca TV ak Mouhamed du mën a ñàkk kon jam kenn du yow waaw. waaw jam dañ koy remercier bu baax parce que ku ñu ku bokk ci ñun décoré nga ñëpp nekk loo xam ne nii macha allah dañ ko si rafetlu baax a baax ñu tëj ki nga xam ne nii mooy Thierno Ka moom tamit euh, mu ñëw wax ci li na dañ ko jàpp fin mois de euh, juin ah, kon daal bu ñëwee boo jàpp ne kon côté fin juin jëm su début yooyu lay war a doon ah, drapeau chef de l'état nag rendez-vous la woon bu nga xam ne chaque année dañ koy organiser muy lu nga xam ne lu neex la bu ko defee ñu tànn équipe yi région région Sénégal ni toll ku ne yebal sa équipe ñu jongante ko ah ki koy gagné gagné ko kon nag nañ ko xaar dal boobu ko Thierno Ka wax rek parce que moom responsable la vice président la au niveau du CNC en temps yaakaar naa mooy seen communication kon loolu yaakaar naa nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax daal waaw communication Babacar may fàtte rek euh, léegi mi ngi si Babacar Seck su ma juumul moo yor communication CNG ci loolu lañ leen di tàggoo di leen jox rendez-vous suba ci àjjuma ji si beneen revue de l'arène ñu àndi seen ak ki nga xam ne ni mooy Mame Talla suñu Baye Fall bi chéri lébu ci caméra bi àndi seek ak Ousmane célibataire boobu noonu mooy lool loolu euh, <laughs> si montage bi di nuyu équipe Leewtoo TV yëpp yàgg maar célibataire bu mag bi tamit ñoom Iba ñëpp ñëpp <laughs> célibataire groupe célibataire yëpp ñu ngi leen di nuyu waaw Iba Mansour retour xale yu célibataire yëpp daal <laughs> ñu ngi leen di béggee bu baax di béggee ñoom Ndeye Kumba Grand Massar équipe Leewtoo TV bi yëpp di leen euh, ñaanal jàmm ak salaam di béggee Amar Gueye fële ca Italie di béggee sama rakk jooju Noray di ko wax namu naa la dèjà dalal ak jàmm foofu nga nekk di di ñoom euh, Mado Soukayna képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Leewtoo TV Babacar. waaw noonu la demee Aïcha comme ni nga ko waxee rek célibataire moom dañoo war a takki soxna. góor ñi te jigéen ñi tamit uti ay borom kër ñu ngi leen koy ñaan yàlla leen ko yàlla def ñoom joor ak ñoom matu non ñoom matu ñi ñoom joor ba ci fleur sax parce que y a beaucoup de célibataires ici au niveau de Leewtoo nañu góorgóor def effort jéem a takki soxna jigéen ñi itam jéem a uti ay borom kër parce que nag kaay ma wax la olof Njaay ne na ah jëkkër ju bon a gën far bu baax de kon dañuy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaye du ma fàtte nag l'international gis nga tey fi ma génn ci maillot Valenciennes ca France Saliou Ciss sama rak sama booy moo jël mayo bi yëkkati ko joxal ma ko boppam kon maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla wéral cër ba mu ñëwaat équipe nationale ba dem ci Coupe d'Afrique bii di ñëw parce que sama vraiment booy bu baax la ci man di ko nuyu bu baax a baax di nuyu tamit Youssou Ndoye l'international sénégalais de basket sama doomu ndey waaye di nuyu ñëpp di nuyu tamit ñoom euh, Idi ak Keppe sans roi lañ ne foofu defe naa di di def rig bi rig maa ngi leen di nuyu yooyu mais nuyu naa ñëpp daal tuuti yaay saar ko fàtte mention spéciale Khady Rose Ndiaye depuis Allemagne xam nga di nuyu sama gars yi tamit comme ni nga ko xamee rek gars yi nekk fii Sénégal fii xam nga ñoom Khadim Sora Malick Massamba Dieye groupe baax Lamine bu ama seen ñoom Badara Laay nuyu naa ñëpp Aysatu ñaanal ñëpp jàmm comme ni ma koy waxee rek Aysa Taala Ndiaye sérili bu kenn du ko fàtte xol bu sedd yaram mu sedd yal na ko yàlla defal ñëpp barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu jox leen rendez-vous suba incha allah